lii ci seen kuréel gi euh, réseau des anciens de l'APR nan ngeen di dundee jamono ji seen seen parce que ku nekk xam ne ni kuréel gi am na ay temps yëngu woon na euh, daan nañu réclamer ay postes de responsabilité yi dafa ngeen fi daje bu mag ngeen njiit réew mi teewoon ko euh, fii ci Ndakaar donc tey jii lan mooy taxawaayu réseau bi fi nekk nii waaw taxawaay réseau bi c'est vrai comme ni nga ko waxee jafe-jafe mu ah, ñàkk ci ay ànd Euh, ak yooyu donc même ci biir kër sax ñu bokk ndey ak baay du ñàkk ay ay jafe-jafe mais l'essentiel ñun ñëpp ñu xam ne rek euh, li ñu intéressé li ñu ñor mooy li ñu bokk te tey li ñu bokk ci liñ jëm nii mooy élection présidentielle te président Macky rek moo soxla keneen soxlawul. tey nag ci wàllu parrainage lañ lañ toll donc euh, fan yi semaine bi passé rek lañ génn. Euh, daje euh, bi président defee ak coalition bi lancement bi ñun tamit en tant que réseau des enseignants Koungheul sax ñu nit weekend ba man Koungheul laa bokk fa laay milité ñu nit daje neen responsable yi suñu commune parce que affaire yi ci commune la yem actuellement waa ñu sasoo ay taxawaay quoi ci ci ci parrainage bi donc si wàllu réseau des enseignants bi ma bokk aussi juste jiite ko donc aussi taxawa euh, woote woon nañ benn séminaire réseau kii ci parrainage bi waaw ñun dañu ne ñun rek li ñuy joxe rek war na permetre président mu mu mu mu mu déposer. parce que dañ ne minimum mu déposer cinquante cinq mille maximum soixante cinq mille ñun dañu bëgg joxe lu tolloog loolu. parce que mën nañ ko parce que xayma bi ñu def mooy cinq cent cinquante deux communes moo am ci Sénégal. 552 communes yooyu nga jël deux enseignants par commune ça te fait mille et quelques enseignants par exemple boo jëloon rek cent communes 1000 fois 2 muy mill enseignants 1000 enseignants benn enseignant rek mën na indi 100 benn enseignant rek mën na indi 100 donc 100 euh, yoo xam ne 1000 euh, enseignants indi 100 c'est cent 100000. te xam nga donc romb a dayoo bi président soxla mais président aussi euh, mu ngi fixé barre bi 3 millions. parce que 3 millions aussi mooy tax euh, euh, tour bi dafay assuré. est-ce que du wàllum sondage tamit ci. ah mais bien sûr c'est c'est c'est normal c'est permis. Mm-hmm. waaw bien sûr mën na nekk xam nga yooyu mooy sondage bu wóor parce que sondage moom xam nga gars yi mën nga ñëw génne sa xaalis bu bari commandité sondage. Mm-hmm. ak yooyu donc son mais sondage bu wóor mooy ñoo xam ne am nañ carte électeur ba pare signé la ba pare signé. lu ñu keneen parce que doublon bi aussi dafa am solo. parce que yow ku ñëw signal la signal ma mais aw du du lu yokk ci man. mais koo xam ne signal na la te signalu ma signal na ma signalu la te signal na ma kooku mooy yokk ci man. su ma la déggee daal réseau des enseignants de l'APR moom bu président toogoon rek ñoom rek mën nañ koo may signature yi muy laaj. ngir candidature tout entretien di seen émission boo xamante nag Tawfekh Production moo leen ko indil di dalal ay kàngam yoo xamante nag ñoo xam ñu nekk ci làngu politique yi wala ci wàllum koom-koom bi wala éducation soxal na actualité réew mi ak lépp lu jëm ci wàllum rek li suqali réew mi loolee nag mu nekk loo xamante ni day am ci seen Tawfekh Production mu nekk émission boo xam ne képp ku mu yitteel mën nga woote ci numéro téléphone yi li 77 792 50 43 wala boog nga jël numéro téléphone bi li 77 251 04 05 mbokk yi émission baa ngi képp ku mu itteel nag bul ko wute te mbokki internet yi bu leen ko tardé benn yoon ndax lépp lu jëm ci wàllum décryptage jàngal leen au lépp lu soxal actualité réew mi dañ ko ci waxtaane ci biir émission bi direct entretien ci Tawfekh Production